ñu bokk sëñ Mbàkke Mor Anta Sali ñu bokk ñoom ñaar Balla Issa ñu bokk sëñ Mbàkke Maram ñu bokk Ahmadou Soxna Bousso Ahmadou Soxna Bousso jur Soxna Sawalo mu jur soxna jaara ñu bokk Ahmadu soxna Busa mu jur mu jur Absa Mbàkke mu jur Faati xam nga ñoo bokk ndey kon euh, loolu moo boole euh, bi bi ñu bi àndee nag àndin woo xam ne nii ba ànd tàmbalee ak léegi ànd boobu monsieur su da gis ku ko ànd ak magam lépp nag jóge ci sëñ Mbàkke Mor mu dénk ko ko mu ànd ak moom ndax ginnaaw sëriñ bi nee na ci ak ndawam ak magam mësta tàggoog moom mooy sama loxo ndijoor loolu rek doyoon na ci kuy saraa dara mu man caa bind te yaakaar na xalima ga day damm waaye ay xalima yu bari ñooy mën bind lool boo ne kan mooy maam Thierno rek da nga kan mooy sëriñ bi ñu àndaan ni nu rafet ba sëriñ bi ñëw di kéemaanu yàlla goo xam ne nii ci kéemaanu yàlla yi la bokk ba tax na boo ñëwee ci dëkkam bi itam boo koy dugg jarutoon sax ngay jàll Tuuba da xam ne ku am rakk ju toll nii ci àdduna ci ba ba nga ba nit tàmbalee wooteeg léegi dama indi rakk ju toll nii xam nga lu ko maye mooy def ko nangul nangul ko mu wóolu ko xam nga sëñ bi yaa ngi dégg mu a ayaa xaadimal muxtaaru laa tanta saxbahu wa man yan saxum fal mat fu mat ful mu xatta muy saxaaba boo xam ne dafa ànd ak moom nga dégg sëñ bi wax ne bul fàtte saxaaba yi mais yoonu murit ak murit yi waruñoo fàtte saxaaba yi nga xam ne dañoo àndoon ak sëriñ bi ba liggéey bi ak si fii liggéey bi ah, ku la wax ne jàppale amu ci lam wax werul ak jàppale gu wóor a ci am sëriñ bi ñu màndal muy waa kër sëñ Mbàkke Mor Anta Sali yi ñun dañ ko nangul loolu itam kéemaan la goo xam ne ba àdduna sosoog léegi doo ko gis xëy nag borom daaru Muxti noo ngi ci barabam ay foofi dugg rek da fekk loo xam ne mën nga faa taxaw kon borom daaru Muxti bu fekkee nit ku ne mi ngi wax rek li nga xam ne mooy li wér bi sëñ Touba yi dem wowul kenn wax dëgg yàlla battale ko njaboot gi moom rek waaw ndax li tax mooy ñi ci des moo leen mag te sëñ moor Jaara du ku ñuy yónni ndax ginnaaw sëñ Mbàkke moo ren sa li sëñ Touba da ko teg fu sori mu toog mu toog ca jataay boobee rek mu jël kisas ci moom muy maam Thierno mu jox ko mbir mi mu téyal ko ko ba mu neexee ak bi mu naqaree ak bi mu neexaate loolu moo waral nag bi ñu gisee gisee boobu mbégte mi ci am tase ak nis bu cent baan itam dafay daal di wane waat ne suñ gisewaatutoon lislaam bu dee luy sëngeem dana sëngeem euh, ndax dana bari lu bari loo xam ne nii seen ñàkk gise googu dana ko jur waaye kon alhamdulilahi rabbil alamin bi mu ñëwee te wàcc te yeble ñu jëlsi ko mu fekk sëriñ bi gise googu muy màggal àdduna bépp ko waroon a màggal ndax nun ñii kenn ku ci dénk nit Eh, weccet tukki juróomi fan rek boo dellu booy xool kook yaa ngi xool li nga ko dénkoon xaalis ba ndax dara mejj na ca wala jël na ko wala sàkkal na ko pexe wala dana la ko delloo si asamaak lu toll ne ay ruu nag yoo xam ne dañoo wóolu nit mooy ruu yi mooy njabootu kër gi yi mooy taalibe yi mu téyal ko lépp ñu bare bare bari moo defar seen mbir ndax ñu doon jaayante bi fi sëñ bi nekkul moom lañ jaayanteel. Mhm. mu téye lépp ba mu ñëwee mu joxaat ko sëriñ bi sëñ bi joxe di nangu. Mhm. moo waral mu demee nii. Mhm. bare na koo xam ne barke ba lëng na ko ba mu defee ne ceer na defarut mbiram waaye ceer na defar na mbiram su ko defarutoon du xaar sëriñ bi du ko xaar ndax dootul mën a dugg kon Ceerno foofu la ne àgg ci martaba boo xam ne martaba bu réeréer la boo xam ne eh, sëriñ tuuba mi nga xam ne moo moom la yàlla defal liggéey bu rëy bi ak moom ak yàlla mi leen bind ak seen waajur wa boole moom rekk mook xam. kon nag murid yi war nañoo jàngataat bu baax ci sëñ Touba ak njabootam. ci sëñ Touba ak taalibe waaye dëgg-dëgg ci sëñ Touba ak borom Darou Mouhty. waaw tey rek la nit mën a taxaw di wut beneen kilifa ba mu des borom Darou Mouhty.